بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ginnaaw bi ñu tuddee màgg ak sellu suñu borom ñu ngi jëlu ci yonante bu tedd bi Muhammadu Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam di yàlla mu jubal sunu lamin. ba lépp lu ñuy wax rek mu nekk loo xam ne luy defar la li tax ma sàkku nag ne damay wax pour jotalee xibaar c'est parce que dama bëgg ñi nga xam ne ñëpp woo naan ma ñenn ñi wax wax joo xam ne xaj na jéggi na dayoo ci kaw maanaam waxu jaamaarloo waxu leneen ma xamal leen ni fii dara xewu fi man mi nga xam ne magum kër tudd sama tur parce que kenn tudd sama tur ku dul magum kër moo tudd sama tur wax ma ci loolu mu wax du du lu ma xam ne naqari na ma parce que suñu boroom bu la tegee nga nekk ci benn place soo mënul muñ ñu jël la fa nga dem nga dem defi leneen am naa sens nag sant naa ko yàlla bu baax bi nga xam ne am naa wuy jur boo xam ne jàngal na yar na ma jàngal na mu muñ muy bàyyi Sidi Thiaw mu teg ma ci yoonu siraatul mustaqima ba ma xam kan mooy sama wuy jur ba ma xam kan mooy sama mag parce que ñi nga xam ne yàlla boole na mag ñoom ci kaw suuf ñuy samay mag muy Seyna Laay ak magam Sidi Thiaw yàlla may na mu wàccoo naa ak ñoom ci joxe cër ci respecté leen ñu delloo ma ko mat sëkk ma leen ci sant di leen ci gërëm samay wéyjur képp ku mu ci mënti doon li kattale si bàyyi si caw mi ci mag ba ci pap maam Arsane mii nga xam ne moo fi génn barki démb yàlla na ko suñu borom dolli leer xare ka àjjana yëg ci àgg gën a kawe képp ku ci nekk jox naa la cër wan na ni sama wéyjur nga teg la fi ma teg bàyyi si caw mi nga xam moo ma yar moo ma moo ma tete papa Doudou Makhtar Seydina Mouhamadou Makhtar mi fi nekk di xalifa ma fas yéene topp ci ginnaawam tarbiyu ko topp ay ndigalam lu ma yónni ma doxal ko na ma ko na ma ko bëggee ñaan yàlla la may la ma sant ma def ko ci ni mu ko bëggee ba duma ci réeroog moom li nga xam ne am na nag li tax ma ciy wax mooy que rek man xaj na dama weex dunq wala xaj na mañ la na ñëwee pour wax ak pour wax man loolu moo tax ma ni dinaa ko muñ parce que li ngay mer mooy loo xam ne da nga ko doon nëbb def ko mu feeñ loolu mën na jar mer mais boo deful dara amuloo dara looy nëbb donc loolu duma ci tontu mais nag dinaa ci leeral ñetti mbir mooy que bi nga xamee ni sunu borom def na sunu baay Abdoulaye wàcc liggéey yàlla na ko yàlla gërëm yëgal ko ci àjjana gën a kawe dafa teg Pape Modou Makhtar mu nekk sunu xalifa ba mu jëlee li nga xam ne yàlla teg na ci ci boppam daf ñu woo kat nañu man kat dama bëgg ñëw ngeen ñëw yow Alassane yow Makhtar Mamat yow maam Ndate man jal ak suma rakk libaas ñu ñoo jàppale ko ci liggéey bi maam di ko doxal loolu moo ñu boole ak moom ñu koy doxal ci ci toppa ndigalam mu ñëw ne ma dama la bëgg yoon ni nga dem ci Malika sama njaboot ma waxtaan ak ñoom ci li nga xam ne bëgg naa ko def te li may wax dama jël sama loxo tekk ci kaw kaamir képp ko weddi ma teg naa la paxtub yàlla ak yow yàlla atte ñu ci kaw suuf ñëpp fekk ga benn ñaar ñett donte lu au moins ñeenti yoon sunu sunu papa yónni na ma ma dem toog ak njabootu Baay Ablaay ci Malika te jiisu loolu ma dem toog ak Seyna Laay suma grand frère wax ko li nga xam ne xalif bi yónni na ma ko ne namm na ko mu rafetlu ko ba pare yokk ci ay wax ma ñëw wax ko xalif bi mu rafetlu la naa wax ne su ma rakk suñu ñëwee naa waxtaan ak ñoom te loolu naa ci waxtaan ak ñoom bañ ci waxtaanee mu ñoom ñëpp ñu rafetlu ko yàlla def ko mu nekk mu def ko. mu ne boo demee na nga wax sama njaboot ne ñoom ñoo jege ngéjje ga ñoo xejje te yàlla def na wattu na ngéjje ga ba tey jii mu sange donc lépp lu may def ci liggéey bi njaboot gi ñoo ko moom ak ak communauté laayeen mais man dinaa leen sama gis-gis bopp ak sama bëgg-bëgg dinaa leen xejjal loo xam ne suñu defee pare dinaa leen ko séddee parce que ñoom ñoo jigee te ñoo fa doon nekk di wattu te loolu wax naa ko ak ñoom ñuy waxtaan 9 ba 1h du matin trois fois benn bi man ak limaamu ñu ànd limaamu sax fa la ma bàyyi ndax amal nu doon dox ma jóge fa une heure du une matin yàlla di dox di dox di dox di dox loolu ñu rafetlu ko di ko dox ba ndëgër ni man doxuma ci terrain yi sotuma ci terrain yi yoruma ci dara lu ma ci waaye waxit mën naa ko nangu amul benn problème mën naa ko nangu parce que maa leen mag fuuf magum kër mii toog di ma wax tey benn at la ma sama taaw donc du man sama rakk mu may daal sama ko su ma ko mënul muñ kon ma xam man am sama place am ma ko donc mën naa ko mu muñu lu ko neex da wax dara nekku ci waaye li may leeral rek mooy xalif général de dinaa Seydina Mamadou ma Laye la mu wax ak la mu jëf jëmee ko ci Malika ak waa Malika rafet lu nan ko lu rafet la te ñoom ñëpp xam nan ko ñoom ñëpp yëg nan ko bi nga xamee ne moom tànn na ba war a def liggéey bi daf ñu ma woo ne ma demal ci Malika nga waxtaanal ma sama njaboot ne bëgg naa fas naa yéene ci fan yii ñëw ñu commencé liggéey bi waaye nag na nga jëkk ci maire bi ndax administration la fi yàlla teg nga dem ci chef de village bi te ba dara Dia bi premier adjoint au maire mën na sédd loolu benn ñaareel bi Maxtaar sama rak woon naa ko ne ko xalifikat nee na bëgg na commencé liggéey bi te la mu waxoon ak yéen képp koo xam ne mën nga ci am nga ci dara loo ci liggéey wala loo ci def ngeen waxtaan seen biir ñen waxtaan ak entrepreneur bi joxe nañ digal pour que mu jappalé len ci lolu té lolu waxtaan nak ak Matar mu dem waxtaan ak ñom lolu lepp am na bu kantane nak ci kër gi dafa am ñu am jafe-jafe wala am problème dañ dem waxtaan ak sen pap mu ko ñuy wax jal jal nañ ko bayyi deful dara yoon neeku ci dara yorelu ma kenn sama masuma dugg ci téne ngejj gi masuma ci wax masuma suma papa momo ñu toog di ko jappalé ci liggéeyam du sax gi taxul lepp tax loolu daal laa bëggoon nit ñi xam ko te xam ne du ma tontu du ma tontunte kenn du ma xuloo kenn du ma wax ak kenn yàlla suturaal na ma nag dawal naa samay baay ba am seen ngërëm baay si dawal naa ko ba am ngërëmam bi muy dem bi ma bàyyi ma am fanweeri at ak juróom ma sant ko gërëm ko parce que moo ma teg ci yoonu siraatal mustaqim paparaan ñëw toog ñu jàppale ko Baye Ablaye 1973 ba may jox wér xale yi wax juddoo gu ñu woon sax. te ñoom xam nañ dañ judd ci kër gis ma nekk bras droit bu Baye Ablaye muy yónni ma koy doxal te samay rakk yu bari xam nañ ci dara donc man rus naa jombe naa su ma Baye Ablaye su fekkee man coloré jàppale ma yar ma teg ma ci diine mu génn may wax benn wax boo xam ne dafay waroo ak njàngaleem ci li mu teg ci kaw suuf jàngal ñu ko jëlee ko ci maamam ba pare nag encore mu nekk ci njaboot gi. li ma ci wax rek loolu la woon pour nit ñi rek dalal seen xel te xam ne meruma naqariwuma c'est des péripéties yoo xam ne dafa am ci biir kër buñ ma ci tànnee nag eh, ma xam ne yàlla moo ko nattoo rek man nangu ko vraiment tranquillement nangu ko te te fas yéene muñ ko ba yàlla indiwaat jàmm ci biir ci biir kër gi mais nag li may wax sama rakk yooyu te am naa sañ-sañ bi mooy nañu dem waxtaan ak seen pap te génn ma ci te bañ ma wax dara la ma seen papa yónni woon wax naa leen ko ñoom ñëpp xam nañ ko kenn ku nekk nag boo dee yàgg sa bàmmeel kenn ku nekk boo jàkkaarloog sa borom xam nga loo def ak loo defoon loolu rek laa ci bëggoon wax wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu di jégalu ñëpp nag mais bu ci kenn mer bu ci kenn wax bu ci kenn def dara parce que affaire famille rek dafay jeex te bu jeexee ku ci waxoon leneen danga nga ci ñaaw waaw maa ngi sant ñëpp di sant xalif bi nga xam ne def na ma xaritam def na ma doomam def na ma loxo boo xam ne daf koy yónni muy dem ci kilifa wala muy dem ci taalibe wala muy dem ci kenn ku ku mag ak ku ndaw maa ngi ko ci sant te fas yéene loolu mu nam ma ci man dinaa ko dox sama kéemtalaay kantan di si ñaan dimbalam suñu borom ba duma ci def dara lu koy lu koy naqari te maa ngi koy feddali sama kóolute sama sama sama taalibe ci moom te di ko feddali sama gëm ni moo fi nekkal Seydina Limaamu alayhi salaatu salaam te di feddali sama sama sama rakk sama nekku rakk sama topp ak sama déglu Seydina Laay mi nga xam ne maa topp ci moom ak magam ji nga xam ne mooy Seydi caw mooy sunu xalifa kër Maam Raan ñu topp ci ginnaawam ci jàmm ak salaam ak lu ñu mën a am dañu am kilifa kilifa yooyu nag du ma def mukk loo xam ne ñoom dañ may gis ëllëg di ma di ma di ma di ma mere wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.